posé question xam nga euh, Karim Xurum Xaq daf ne comme Bassirou Diomaye fay jël na réew mi maintenant ça ah, euh, suffit nañu dindi braça yi nañu mm-hmm. en comme si que parti bi dafay jeex Pastef euh, Karim ñun dañoo bokkoon ci ñu koy xeexal mm-hmm. Karim Xurum Xaq ñun dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo porté xeexam xam nga lu tax ñu ko doon xeexal mm-hmm. dañoo gis ñim jàppe woon le président Ousmane Sonko dëgg la te ñun Sonko ku ñu ci bëgg a nax rek man nga ñoo nax nag waaye Sonko ñi ko gëm daa bariwul ñu bari folklore bee leen indi te ndaw ñee ko gëm ak ñi nga xam ne bëgg nañu réew mi mais ñu bari amoon nañuy tur avant dañoo ñëw làqatu ci moom te xam nga nu ñuy def ñoom léegi lañuy njëkkantoo maa ko njëkk a attaqué maa ko njëkk wax dëgg maa njëkk a def loolu du ngóora a sawaay Karim bu fekkee nee na na sum nañ summi suñu tise bi kaay nag képp ku naan la bul bëgg diw ba sañoon nit ñi bëgg ko képp ku naan la di nga jàppe diw dafa ëpp bu sañoon ñu jàpp ko jàpp gu ëpp boobu képp ku naan la bul takk baraasale bu sañoon nga takk baraasale tudd ci turam wala nga tudd ci aw mouvement am wala nga sol tisetam wala moom danga ko gis mu sol tisetu mouvement te nag ñoom gis nga diaboliser président Ousmane ko baaxul ci ñoom xam nga lu tax mhm. heure bu ñuy foncé ci kawam rek ñu koy gën a bëgg dëgg la ñoom xeex boobu dañ koo comprendre dugul ba tey keroog keroog ba ma gënee gis ñuy wax président Ousmane Sonko lu bon wala ñu koy diaboliser keroog laa ko gën a bëgg ñoom ñu ko bawoon ba tay sax mbir mi du demee nii mais Karim président Ousmane Sonko jëlagul fonction benn mi ngi koy doog a jël ñaari fan mi ngi mi ngi nii passation de service mook Sidiki Kaba le président Bassirou Diomaye Faye yooyu yoon lañ doon wax ak droit ñu xëy rek ubbi kaso yi na ñëppuy dem buñ sañoon kenn du fanaan ci kaso bi maa ngi koy wax léegi mhm. mais am na loo xam ne il faut ñu jaar ko ci yoon dëgg Maître Tall maa ngi koy dégg te dinaa ko wax te lii moom mooy li am. Mhm. Maître Abdoulaye Tall bi nekk Mbour. waaw guddi bëccëg suba ngoon mi ngi ci kaso yi ci affaire u détenu gi avant Karim di wax nelawut moom. suur bi ñu jógee passation de service bi. Mhm. jam ñaajo mhm. direct la dem ci ci ñoom. Maître Abdoulaye Tall ñi nekk Thiès ñun xam na ñëpp ñi nekk Thiès ak ñi nekk fii Dakar di rayante booy dafa am ñoo xam dañoo taxawoon baar. seen ay dossier nekk en cours bi ñu gracier ñooñu doo ñëw rek euh, ña ca gën ñooñu tey bu fekkoon yoon la sax wala ñuy doxal yoon ñoo ne sax ñoo njëkk a génn ñi mais xool mbir yàlla mm-hmm. ndax ñoom jot nañoo jël seen ay dossier ok mais nag tey bu fekkente ne yow xamoo li si xam xamoo xamoo wàllum droit mm-hmm. xamoo wàll xamoo dara nga jàpp ne loolu sëñ bi nañ waxante dëgg fii kenn bañu fi kenn kenn du fi dépassé kenn mais nag suñu waa ji lañ am muy le président Ousmane Sonko ku ne ko xuruus dinañ na la xaraas na la xaraas na la xuruus nit it da koy bay ki mu bëgg te ñu bari ñu ngi yàkkamti fi ne ak juum wala erreur wala échec am ñu ngi leen di xaar je suis paré pour tout parce que réew mi lañ bëgg a defar du yëfi le président Bassirou Diomaye fay déedéet du yëfi yàkkamti naa xuloo le premier ministre ak le président seen xuloo ba ñëpp taxaw ne aha fi ne yu la ñu c'est jamono yooyu la ñu xalaat quoi wala maa njëkk attaqué président maa njëkk attaqué patriotes yi maa leen njëkk wax lii te booy wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg mhm. booy yi tooñuñu kenn ba tey yu bon yooyu sax teel sëñ bi dama ciy profité rek am na ñoo xam ne nii dañ ciy dem bay tudd soxna Ousmane Sonko naan gisuñu ko ci wetam mu nekk mhm. euh, di dem sax bay ñu koy wax ñu bari seen yaay ak seen bàyyi dañoo di nañ lijjanti loolu <laughs> bay ci say weyi tànk balaa ngaa lijjanti Anna ak Sonko doo lijjanti sa ñaari wayjur yi nga xam ne ça fait longtemps ñi ngi ñi ngi ñi ngi mënu nekkuñ ci jàmm ah, moo tax ñu war a defaraat réew mi loolu lu suñu yoon ñun ah ah Anna <laughs> di nga reekay c'est que lii mooy Sénégal ah, gis ku ñëw dagge sim xew bu ñëwee du la laaj jàmm du la wax jàmm dalay tàllal ab micro rek bëgg dugg sa vie pourquoi gan senegal lañ ne ñëw la di lii yàgg diw di forcé ngeen yàgg sëy loolu ci yoonu nit ñi boo bëggee sëy demal yi boo bëggee tas demal tas ah ñun réew mi la ñuy wax quoi waaye détail yooyu te loolu nag ma wax la loolu dana dana du ma ne dana dañ Sénégal ba jeex takk mais dana wàññeeku ba réew mi yëpp xam ne loolu wàññeeku na puisque loolu jëmewul fenn deebaa bi xam nga lan moo am fi ne mm. ay idée ak ay xam-xam ñu waxtaan suñu fëlëj bi ñu waxtaan suñu géej gi ñu waxtaan suñu fer bi nekk ak ñu waxtaan suñu gaas bi ah, nuñ koy exploiter dee baa xam-xam yooyu ñu tabax réew mi mhm. Sénégal gu bees loolu lañ bëgg quoi mais toog fee naan kii tas nag aana ñëwut fee xadi kebee nga ne aanaay xadi xadee aan am na ko ñëw kay na ñëwal morom mi rek temps yi da en fait may mayetoo dara bi sonkoo falaw ba tey mhm, mhm. dafa mel nga gën a sévère euh, euh, dañu yaakaaroon da ngay lâcher prise bàyyi mais da da nga gën a farouche quoi pour wane ne tu es toujours là pour faire face ah mais cheikh bi tey bi nga jàngee ba ñëw mhm. sa micro bi da cee gën da nga koo gën a jàpp wala da nga koo gën a baax dëgg la ah, chaque jour yaa ngi def effort boo xam ne ku la gis day gën a xam ne da nga fonk sa liggéey dëgg la waaw ah, tabax ba noppi nag jol sa marche di ko daaneel man bokkuma ci ñooñu ok man du ñi nga xam ne fi mu ne am na ñu bari ñu ngi ci ñu ngi ñi ngi jàppoon ci komba bi xam nga lu ñu xaar. waaw jéem wut provocation. jéem wut lu leen naqari jéem a wut nu wala nga oyof bopp ba déglu yenn yi ci ñi nga xam ne duñ sax ay patriote mënoon nañoo jox keele mënoon nañoo fal keelee mënoon nañoo jël Amadou Ba bu jox ko nangam Birame Souleye Diop nangam c'est que et cetera. dama la bëgg wax na la li nga doon xeex ba gañe ko te sax gañe guñ parce que liggéey bi dafa tàmbaleegul. gañee guñ mooy il faut juróomi at yi mat. Sénégalais yi xool ru liñ fi def lan la. bilan bi Sénégalais yi xool réew mi ci loxo yim nekkoon ci wàllum yoon ci wàllum souveraineté surtout militaire dañ cee war a dugg souveraineté monétaire souveraineté dañ ko maanaam dañoo dañoo dam tey il faut nag ngeen baal ma dama dama bëgg a wax ndax tey njàngale mi dafa am ci lu muy lu mu duggaat ci réew mi mm-hmm. moom suñu bopp ci lan nit ki am nga droit ci sa moom moom sa alalu dëkk fi ne bi keroog dama koy wax sama benn xarit ñuy waxtaan ci wàllu monétaire ma ne ko tey réew yu bari ñu ngi Afrique ba ci Gambie gi wala Mauritanie wala nàngam am nañ seen xaalisu bopp fi mu ne ñu bari boo ko waxee Sénégal dañuy jàpp ne yow li ngay wax nii waxi xale la mm-hmm. te réew nag fii ak àggagoo foofu moomagoo sa bopp dañ ñoo not ba tey dañ ñoo tënk te loolu dafa bokk sax ci combat bi bokk ci projet bi mais du da ngay xëy xëy ñëw rek def kut kookut il faut ngay teg say palaa teg sa programme def sa bilan nga mën a xam ñi nga mën a liggéeyal moo xam ci CEDEAO mën a xam ñi nga mën a liggéeyal ci ñi nga xam ne fi mu ne ay révolutionnaire la yu feeñ lu mel ni Mali Burkina et cetera nga xam ne réewu Afrique yi tey. yow xoolal ñi fa ku la jox réew mi nga yor ko de sëñ Maodo. Ah, ku la jox réew mi nga yor ko je sais pas dama dama xam nga yaa ngi wax naan man nañu ma bàyyi ci seet bi naa delluwaat ci seet bi mais am na loo xam ci am na loo euh, xam ci déedéet loolu non non joxum réew wala doxal booy xool bi ñuy mujjee def ñoom dugg seen ay article article bi mujjee mooy mhm. damay sama benn xarit ñuy waxtaan ñu indi article 27 alinéa 2 fi code bi di wax na leen président de la république bi nga xam ne moo fi nekk ak tel fii ak passation de service amul moo fi continuer di nekk ma toog ma toog ma toog ba ci yàgg ma ne ñun senegal dafa mel dañ ñoo yàpp mm-hmm. ñi deful woon ñi nga xam ne demuñu ñi ñi ñi ñi ñi demoon enam tey ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo jàngi woon sonni ci réew mi tey hmm. sama classe bi nga xam ne lu dugg seen bopp bi duñ ko fàtte hmm. tey jii mën na maa dem ci baro bi mën a atte koo xam ne tey dafa def moo xam euh, nu ngeen koy waxee seen loi yi moo xam dañ ko war a def coupable dama la bëgg wax na la hmm. tey def nañ ci bopp sénégalais yi loo xam ne mën nañoo tey atte loo xam ne ñun sax jàngiwuñ ko woon lépp cuune da Macky sàll la nag cuune d'état bi moo tax tey xale yëpp xam loolu moo tax tey boo dégloo sama waxtaan nga ne waa sëñ Mara kon fu mu fu yi fu xamee yi fekk ñi jëflanteel dañoo demoon ñoom ba dañoo génn lépp li nga xam ne mooy secret d'état génn lépp li nga xam ne tey ñi jàngul sax waruñ cee am accès ñu teg ko ci taabal ji. donc Ousmane Sonko dafa ndaw ñi. waaye sëñ bi Sonko dafa yee ndaw ñi ba moom mënatu leen a nax ma wax ko tey mu leer. Sonko dafa yee ndaw ñi ba moom mënul leen a nax waaye nag heureusement ba du naxakat nekkut foofu le président Ousmane Sonko talul jëmmam le président Ousmane Sonko mook Bassirou Diomaye fay